feetu football noonee la ñu dàqantalee ngonal bi nga xam ne LONASE ànd seeg njiitam Lat Diop amal na ko ci ajuma ji ngir feddali kóllëreem ak football sénégalais koppar bu takku la LONASE jébbal mboolem club yi ne ci Ligue ak lig 2 bu Sénégal équipe nationale bu football bi tam am na ci wàll gannaaw contrat sponsoring yu ñu xaatim. dañ fi ñëw pour xaatim ñaari déggoo bi ci njëkk mooy. ligue sénégalaise de football professionnel bi nga xam ni championnat local bi. beneen bi mu dox diggante fédération sénégalaise de football te li ko wund yëpp mooy fexe naka la ñuy équipe nationale de football waaye aussi naka la ñuy jàppale championnat national bi. nationale sénégalaise dafa une société nationale boo xamante taxawaayam ci biir réew mi mayu ko muy sponsoriser benn club waaye may na ko mu jàppale banqaas yi nga xam ni ñoo boot football bi may na ko mu jàppale banqaas yi nga xam ni ñoo boot discipline yëpp dama bëgg wax foofu rek ni LONASE nekkul ci football kese ñu ngi ci basket bi ñu ngi ci course hippique ñu ngi ci yeneen discipline yi nga xamante ni sénégalais yi ñu ngi ciy yëngu te mu neex leen sport bii nag nga xam ni mooy football Maître Augustin wax nga ko léegi LONASE yàgg na jàpp ci football locale yàgg na jàpp ci équipe nationale waaye nag chance bi ngeen ci am mooy dangeen am koo xam ne dafa bëgg football bokk ci football bi te fas yéene cee dugal loxoom bu baax a baax ci fi nga xamante ni président de la république teg ñu fa. may wax président ligue sénégalaise de football professionnel di wax président club yëpp di feddali sama taxawaay ci dimbali leen ci jàppale leen ci seen nekkin ndax. ñu ngi leen di jox tey 4 millions ku nekk L1 ak 2 millions loolu du sax asaka suñu yéene bu ñu sañoon dañuy ñëw régler problème bi yëpp ndax man mii di wax ak yéen xam naa lan mooy yor club te loolu donte sax réglewul problème bi yëpp waaye dañ leen bëgg wan ni rek ñu ngi seen gannaaw te li ngeen di daj xam nañ ko pour le rayonnement du football local. képp ku bëgg sport képp ku bëgg football amel na leen njukkal ndax. yàlla dafa def yàlla daf ñoo nattoo ñu ne ci bii boor ne ci bee boor donc xam nañ li ñuy dund lan la. wax ji daal mu gudd mu mu gudd mu gàtt mooy euh, monsieur Wade monsieur Senghor l'ONAS encore une fois ci tey daje bi ak acte yi ñu fi posé dafay wane rek rek ni liggéey bi doo leen ci nekk yéen kese am ngeen ñoo xamante ni dina leen si jàppale te xaaruñu dul ngeen wax ñu seen mébét xaaral ñu ludul ngeen wax ñu li ngeen bëgg bu boobaa ñu def si suñu kéemtalaay kàttan. mbooleem kilifa yi ngànk footballu réew mi dalee ko si ay njiitu club ba si njiitu fédération sénégalaise de football Augustin sengor ñëpp rafetlu taxawaay bi nga xam ne LONASE am na ko jëmee ko si wàllum tàggat yaram. signé ak fédération signé ak ligue professionnelle donc def naa loolu dafa jara rafetlu ñu koy gërëm di ko sant si si nooy footballeur yëpp ak acteurs yi football yi di ko wax aussi que. rafet la nu ñu jàppale bi mu ñuy jàppale te am yaakaar ne lii LONASE def dina nekk loo xam ne dina nekk royukaay pour yeneen partenaires yi pour yeneen sponsors yi pour yeneen société nationale yi ñu ñëw jàppale xëj na euh, football bi mais tamit ñu bàyyi xel ci bànqaas bi nga xam ne mooy soloy football parce que mooy football local bi dugal koom ci euh, football professionnel bi dugal koom ci football amateur bi parce que comme ni ñu koy waxee euh, li nga xam ne mooy socle bi bu dëgëree muy football local bi àlakulial it li nga xam ne mooy suñu équipe nationale yi du bañ na coupe d'Afrique la ñuy gagné ci catégorie yëpp la ñuy gagné coupe d'Afrique te gëm naa ne dañu sax si gagné ay ati at football local bi nag problème club football euh, ligue professionnelle du problème club yi fi nekk rek club bu Sénégal yëpp la parce que club bu nekk suuf mu nekk nawetaan mu nekk corpo da nga aspirer yéeg ci kaw tey man mi nga xam ne sama club l la nekk bu subaa mun na nekk suuf su ma jëlee naare

ndax kat football bi lim indi ci Sénégal japp nañ ne amul benn service wala société bu ko fi indi jàmm ji amul prix te ñi ngi jëm ci ay barrage nañ ñaan yàlla ñu gagné ko dem coupe du monde nag ubbi coupe bi indi coupe bi. téeméeri million mooy xayma koppar gi nga xam ne LONASE séddale na ko fukk ak ñeenti équipe du Ligue 1 ñeenti million ku si ne ñaari million pour fukk ak ñeenti équipe yi ne si Ligue 2 fukk ak juróom million ñu jagleel ko futur champion bu Ligue 1 sénégalaise siwal nañu itam. prime de résultat di ay neexal yu jëm ci gayndey Sénégal yi toll ci juróom-ñeenti fukki millions pour coupe du monde bu Qatar 2022 juróom-ñeenti fukki millions ngir coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023